yéen gis ngeen ni nee nañu dàq nañu àtte bi ba mois de septembre li waral dàq bi nag ñoom ñoo ko xam waaye tey ak septembre ak deux cinquante la ñu yemale dañu bëgg a wax sénégalais yëpp wax ko Macky Sall mooy fi ñu taxaw nii muy mairie Dakar bu soobee yàlla ci juróomi at yi di ñëw. ki koy jiite Barthélémy Dias ay tudd loolu mënul Moussa Kirwane ak fenk ay pexe ba loolu du am parce que loolu choix wu habitant wu Dakar la moom dafa amoon ay candidat am ngemb leen ñu duma leen duma goo xam ne du lu ñuy laam-laame kon bu dee yaakaar nañ ni mun nañ ko jaarale ci beneen pexe te defoon ko ak Khalifa Sall mu jàll waaye dootul am du am fenn fu mu jaaraat ba benn mairie boo xam ne yàlla jaare na ko ci sénégalais ñu dénk ko opposition mu jaar ci ay pexe tappale yoo xam ne da koy jaarale ci justice wala ci corps de contrôle wala ci leneen leneen ba nangu ko ci ñu du am ñaareel bi ñu bëgg a wax mooy bu dee foog nañu ñoom muus nañu ba tey foog nañ ni mun nañu jëndee reportu délibéré Barthélemy Diaz ak problème mu liste yi nga xam ne am na parce que problème liste yi ñaari problème liste la problème listu ndakaaru yeewi askan la ñu ne liste yooyu amul dara lu war a tere ñu nangu ko parce que li dese direction générale des élections def démb déni d'administration la mooy bañ a jël courrier liste yooyu dina jàll ñaareel bi mooy listu Benno Bokk Yaakaar dama bëgg bis ni ki tey képp ku bokk Yewwi Askan Wi képp ku bokk opposition képp kuy citoyen bu engagé débat bi nekkatul liste Yewwi Askan Wi kooku féet féet nañ ko boor débat bi mooy Benno Bokk Yaakaar warul bokk ci élection yi loolu mooy wax ji ñoom nag ñoom nag saa yu wax amee dañuy génn di jaay dang làmmiñ dégg naa loolu ñu jël def ko tête de démb nee na force restera à la ñu ne ko fekk nañu ci force restera à la loi et loi li mu wax ci bii mooy benn Bokk Yaakaar warul bokk élection ñu ciy wax nag ak conseil constitutionnel jamono jii ñuy wax nii Déthié Fall jóge na conseil constitutionnel déposé na recours yi ñu war a déposé bii paa nag ñi ngi xaar conseil constitutionnel te fu ñu woo dinañ ñu fa fekk te bu soobee yàlla ci fan yi di ñëw dinañu organiser un grand rassemblement à Dakar di ci woo sénégalais yëpp rawatina jeunesse bi parce que Macky Sall 18 mois moo ko dese ci bopp Sénégal desewu ko benn fan de plus bu 18 mois yooyu jeexee daf ñu war a abal ndax koo xam ne bim mu fi toogee ba léegi fitna sur fitna complot attaqué opposants yi ku ne d'accord ma nga tëj jaay suñu réew jaay alalu réew mi. wër di yelwaan subaak ngoon naan tubaab bi jox leen kooku Sénégal ci boppam moo dayal ci moom 18 mois yooyu nag moo ko fi dese bu yaakaaree ni mun na jaar ci ëllëg pour pour pour li nga xam ne moo war a acter définitivement la fin muy élection législative yi ndax na boppam loolu lañ ci bëggoon wax ci lu gàtt.